fii nii ci euh, xaar yàlla fi ma nekk nii waa mais politicien politicien yi la rek ñuy ñëw di ñëw ñëw fii di di xam nga ne ku toog tey nekk benn beneen beneen façon nit nga ñëw di ko jox xaalis di ko wala di ko jëndal ay matériel di ko jox kooku mooy jàppale ma nit ki nag boo koy jàppale na nga koy ci dëgg yàlla ba mu ñuy sant daf ne jaar leen ci dëgg kon nit ki boo koy jàppalee di nga jàppale jàppale ko ci dëgg dëgg rek moo mooy mujj mooy njëkk te mooy mujj nañ yàlla nañu yàlla defal ñu sax ci jub rek moo am solo nit ki boo respecté sa morom waroo koo yéene lu bon waroo koo gaañ waroo teef lu koy gaañ paaka nga jël paaka di jam nit jamal sa bopp nga xam ne tey boo jamal sa da xam ne li ngay jam nit ki lu metti la kon loolu loolu loolu nit ki war na ko moytu moytu bi mooy nit ki daal nit ku nekk respecté moromam jàppale moromam dimbalante adduna fii dimbalante rek moo fi nekk yàlla yàlla nag ki nga xam ne moo sàkk moo ñu sàkk ba muy mu ñuy bind adduna tàgguwu la ma moom moo xool la ko neex mu def ko si doomu aadama bi aada doomu aadama bi bu ko neexee na am ay milliards yàlla moo ko yàlla moo ko defal lii la yàlla wërsëgale ko boo ko doyloo rek sant yàlla non ma ko dégg rek mais mais nag na moom mais dégg naa ne am na mais leer na ma ne moom am na mais dama ko dégg rek gisuma ko nag mais xam naa ne loolu moom am na parce que ci loolu gars yi di dox nit ki buñ buñ la soxlaa dañ lay neexal pour nga mën leen jàppale la neexal defalul dara doo leen defal dara adduna loolu moo ciy dox nit ki boo ko bëggee yilif wala nga bëgg ci moom dara da ngay ñëw neexal ko jox ko dara loo xam ne dina ne kii kat jox na ma dara dama koy jàppale mais yooyu ci boppam mooy suñu alal la ñu ko tegee fi ñu ko war a teg jàmm rek mooy am ci adduna bi affaire bi si na mais nag am na rumeur bi daw gars yi ne am na moom moo tamit mën na ko défendre ne ndax moom tamit exemple moom exemple la léegi quoi moom nekkatul beneen nit moom léegi nekk na nit koo xam ni xam nga dafa war a joxe benn benn exemple boo xam ni booy dañ ko war a roy mais comme li mu commencé def nii ak message bi mu lancé woon bokkul quoi moom daa benn instant ndax parce que moom ñëw mu dafa gën affaire banditisme si booy yi léegi bu gisaatee yow xam ne da nga génne arme menacer ay nit ñoo xam ñoo la wax peut être waxuñu la day metti tamit yeneen jeunes yi bu ñu ko gisee dañ ah kon sa saw ni nekkoon lañ nekkaat kon dinañ si dalawaat moom daal moom ko kon nekk moo gën naas quoi ndax booy mën si génn ndax moom royukaay la woon quoi commencement bi doo ko fël gars dañ ko bëgg nag bu yàggee nii day yàq moom franchement man la mais lu métti daal te ko doomu aadama yow jàppane yow te nga ko sa bopp quoi waaw sa bopp la day metti waaw loolu ñun ñëpp sénégalais ku la financé ak kii nekk suuf moo tax presque booy seet daal nekk ci la nga war a nekk boo xëyee nekk ci la war a nekk man moo ma gën a nekk di toj ci mbedd yeeg di yàq te keneen ku ñëw tam dafa war a defar mais wurta wàññee te ni mu demee keneen ku ñëw defar ngay def parce que li ci ëpp gaay yàq nañ ko waaw te ñun depuis 84 ñu ngi à l'extérieur mais demeewul nii kon bu ñëwee fii affaire bi jaaxal ñun ñun vraiment delloo seen xel daal toog waxtaan moo ma gënal ni ñuy def di yàq alali jàmbur di toj alali jàmbur te du mujj fenn loolu d'accord ñu ci ñi ci kaw nañ yërëm ñi ci suuf nañ nañu nañ wàcc seen parce que lépp ñàkk ma koy indi mais ñàkk dañu xam ne du fii rek àddina bépp noonu lay demee depuis 84 maa ngi Italie a changé léegi nu mu demee moom demeetu ko léegi da ngay xam ne ànd ak yàlla loolu ñu ci kaw ñu ci suuf ñu ci defaat seen toogaay mais yàq moom du defar dara yàq moom defarul dara gisoo loolu noonu li ko waral mooy ñàkk xëyum ndaw ñi waaw ñàkk xëyum ndaw la maa ñàkk na ci gars yi góorgóorlu mais itam boo demee à l'extérieur noonu fi ñàkkee noonu la ñàkkee à lu yomboon foofu jafe na fa léegi waaw wute nañu parce que ñoo foofu foofu même boo liggéeyul dina am loolu sutura bu weer wi dee mais loolu ñun amaguñ doole jooju waaw de foofu boo liggéeyul tam am na fooy dem am na jël fa lekk am na fooy dem jël fa naan am na fooy tëdd boo liggéeyul mais fii boo liggéeyul doo lekk doo naan boo sarax li ñu lay sarax doo ci mën a def dara waaw insécurité bi moom ku ne ku ne ku ne gis na ko ci ci ci jamono juñ toll nii parce que tey fi ni suñu réew suñu réew manqué na loo xam ne vraiment yar yar manqué nañ ko parce que tey ñun dañu war a yar suñu bopp avant ñu ñuy yar ku ci jiidoo ci eh, way bu baax ak ci eh, ci xet bu baax war nga mëna yar sa bop yar sa bop bi moy nga xamni li kat suma ko defé dana yes dana yedd sama bop nga bañ ko def insécurité mom gis nañ ko ci dekk bi insécurité moy di def lo xam yamo ci sa ci nga xam ne yalla la nga fekk alalu jàmbur ko xam ko liggéey ba nga xam tay di yalla dimbal ko nga ñew nga ñew daj ko daane ko jël jël alalu jàmbur te liggéeyoo ko lolu lolu insécurité la insécurité la kon nak nit ñi nan yarar suñu bop yar suñu jikko yi xam ne lii àdduna la kii mënoo fee dund lu weesu mënoo fee dund téeméeri at kenn dundatu ko kon nag diggante bi na rafet yamal ci leel yàlla wërsëgalee nga liggéey dimbal sa waajur dimbal sa njaboot. waaye li may sa état bi mooy nañ jàppale askanu dëkk bi nañ jàppale askan wi jàppale askan bi mooy dund nañ ko wàññi jàppale jeunes yi nga xam ne liggéeyuñu ñu utal leen liggéey dimbale leen jàppale leen moo gën ñu jël suñu alalu réew mi di ko pasar pasar di ko yàqate di ko def ci ñoo xam ne amuñu benn njariñ ñi nga xamante ne ñooy am ñoo jóg ñooy am ñii ñàkk di ñàkk rek loolu moo war a jeex ci àdduna loolu moo war a jeex fii ci àdduna nañu dimbalante jàppalante ñi amul ñu dimbala leen li ut ay bëdëbu liggéeykaay mécaniciens yi nga xam ne nekk ci mbedd ñu dimbala leen fu ñu toog liggéey yor seen waajur yor seen i njaboot waaw loolu daal vraiment nañ toog waxtaan daal bu ñu toogee waxtaan trouver solution dina am mais ñàkk waxtaan bi moom mooy erreur te dañoo ñàkk waxtaanuñu bu ñee mere jëm ne ñee mere jëm ne dafa day dara du defaru